Euh, <coughs> di xamle it nag li ñu suñu borom subhaanahu wa taala moom mu dogal moo gën bokk na ci dogalam yi mooy yàlla suñu borom indi ko Thiès quatrième Magal dafay liggéeyal lislaam bi liggéeyal Cheikhul Khadim radiyallaahu anhu ci ndigalal képp ku fi nekkal Cheikhul Khadim radiyallaahu anhu te ku ko fi nekkal ci kër gi mu sax si mu taw mu nekk ci ginnaawam déglu ndigal yàlla dogal it jamono ji ko ne xam na ni Eh, woote na tool yam daan woote ci Mbalakon ci Kër Mandiou te ki ko jiite di Serigne Diakha Touré eh, ñu dem ci liggéey bi. ñu ngi ci këram ndax ay dig-dig yu bari am na ba bokk yi di woote fu bari waaye ñu xam nañ naka ca kër ga naka ca liggéey ba mu daan ci wax ak di ko defal islam di ko defal njaboot bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina nag jamono ji nga xamante ne kilifa yëpp kenn du dugg ci dëkk bi fi ñëw ñu nekk ci dëkk yëpp ñu di ko siyaare comme ni ñu aada woon defe moom di sant mbool bi yëpp di sant bi ñëpp ah, di xam ne it eh, nekk ci ndigal yàlla yi te daw yàlla yi mooy ndigal yi lii mooy kàddu yi nga xamante ni ci turu sëriñ bi ci turu murid bi suñu jullit ñëpp ñu koy leeral xam sëriñ bi naka ca kër ga ah, taxaw yam nan am yëpp incha allahu rabbi ñu koy taxaw njaboot gi suñ ko war a féete yëpp ñu ko fiy féete ñu xam loolu te ñu ngi gën ñëpp wa rahmatullahi wa